su julli jotee laata muy tàmbale julli nag yëg ne mboree ngi gën ci moom su jàppee ne ba waxtu way jeex mboriñ moom du fi jeex nit ki moom daana ko dal te xam na nam daan yàggee mu jàpp ne daal moom ba waxtu way jeex mboriñ mi du fi jeex kon saye ba mu daal di julli jërut muy xaar dara su yàlla dogalee it mbori ma jeex te fekk lu waxtu wa jeex it du tax ñu ne ko war ngaa baamu ba tey jàppal ne tàmbalee bu te julli waxtu julli jot na mu tàmbalee bori waaye nag yaakaar na ne moom balaa waxtu wee jeex mbori mi dana jeex mu mën a bañ a julliwaale sobe benn mën na caa dogu mbaa jort na ko mbaa ma nga cay sikki sàkk dañ koy wax ne kon bul julleegul da ngay yéexee julli gi ba ca mujjug muxtaar ma su àggee ci mujjug muxtaar ma te fekk deret ji jeex baax na bu jeexul nag nga julliwaale deret ji muy sobe si moom nag ndegam jàpp na ne balaa waxtu way jeex deret ji jeex ba du julliwaale deret ji faaw mu xaar ba ca mujjug muxtaar ma bu yàkkamtee daal di gaaw a julli julli ga du baax li wax léegi mooy ba muy bori te fekk tàmbaleeguta julli muy wax nag ba mu tàmbalee julli ba noppi mbori mi tàmbalee génn kooku moom julli ga mu tàmbali bu bokkee ci genn ci julli juróom tam jàpp ne ba ba waxtu way jeex mbori mi noonu lay def kon saye boobu wuyu ci julli ga rek jullee ko ak deret jay génn yeexe ga amul benn njëriñ bu doon nag du julli juróom dafa nekk julli xiit korite mbaa tabaski wala muy julleeg néew naka ñu tàmbalee julli rek moom mu tàmbalee bori kooku day seet bu jàppee ne ba ba ñu noppi ci jullig kori ga mbaa tabaski ga mbaa ba ñu noppi julleeg néew ga deret ji moom du fi jeex bu fekkee loolu la jàpp kon newee ci julli ga rek noona bu mu dagg muy jullit juróom rek muy jullit korite mbaa tabaski mbaa jullit néew kat bu ñu nee itam ndegam jàppul ne deretam dana fi jeex newee ci julli ga day fekk foofa bañ a doon ci biir jàkk ba noppi ñu lal ca laltaay yoo xam ne mboreem mi mën na caa toq sobee ko su boobaa moom faaw day war a dagg génn ndax dañuy bañ mu sobeel jàkk ja bu dee nag jàkka ji amut laltaay suufus kese la wala ay doji kese la wala karo la ndax karo moom daa yomba raxas kon newee ci julli ga bu foofa taqee itam dana yomba dindi sobe sa waaye bu dee laltaay boo xam ne moom dañ koo féetale jàkka ja kon faaw daa war a dagg bañ a taqal laltaay boobee su fekkee ne itam bu sëggee rukkoo mbaa mu sëgg sujjóot mboori mi dana ko gand deret ji gën a am doole ci na muy génne kon mën naa bañ a sëgg rukkoo bañ a sëgg sujjóot te leen lu ci nekk mu di ko junj di ko ñëpp rek nga xam ne noonu mu taxawee woon rek noonu lay taxawee junj rukkoo ba bu dee sujjóot ba it day toog rek junj ko te bañ a rukkoo bañ a sujjóot bu fekkee ne it bu sëggee rukkoo mbaa mu sëgg sujjóot du ko wàññi dara ci wéru yaram ni ki yokk tawat mbaa sos tawat mbaa yéex a wér waaye bu sëggee rukkoo mbaa mu sëgg sujjóot ay yéreem taq taqaay boo xam ne bu ko fóotee rek cele jaar yàqu ko it daal di ko may mu bañ a rukkoo bañ a sujjóot te junj rek rukkoo ba ak sujjóot ba bu fekkee nag yaramam dong day ragal mu taq kon moom du ko tee rukkoo du ko tee sujjóot ndax dañu jàpp ne yarama moom ak nu mu mën di taqee rek mën na koo raxas te du wàññi dara bi mu ragalee ne bu rukkooyee mbaa mu sujjóot mboriñ mi dana ko gand ñaar la su jàppee ne na mu koy gande ba kanam mën na caa des mbaa mën na caa jële ñàkk ab cër mbaa dara bañ ngaa rukkoo bañ ngaa sujjóot te ñu rek yem ca lu war lay doon su jàppee nag ne bu rëkkoo mbaa mu sujjóot it dana ko sonal waaye du demee noona kon moom dañuy sopp rek mu bañ a teg coono boppam te def li ko yoon may waaye bu dogoo ci mbori mi du ma tee rukkoo du ma tee sujjóot it ba tey baax na li mu la waxoon léegi mooy ba mu tàmbalee julli mbor mi tàmbalee génn dafa jàppoon ne moom mbor mi du jeex mukk booba waxtu way jeex ñu ne ko woon kon wéyal julli bul dagg julli gi muy wax nag bu fekkee ne jàpp na ne moom balaa muxtaar mee jeex mbori mi jeex mu mën a tàggoog moom julli ak làpp bañ a julliwaale deret kooku moom dañ koy teqale ndax na mbori may génne day xeeb rek ndànk-ndànk wala day satatati wala day toq toq yu mag a mag li mu njëkk a wax nag mooy su fekkee ne day xeeb rek ndànk-ndànk kon da koy baram te baram gi bu di ko defee loxob càmmooñ moom lañ ci gën a taamu nañ koy defee nag mooy baaraamu day bi ci boppam poñ ba ci mujj koy wax ab kóol moom lay dugal ci paxum bakkanam foppee ko daraja daa koy taqal ci catul baaraamu sànnikaay bu dugalaatee baaraamu day bi ca bakkan ba ba mu taq deret mu taqal ko ci catul baaraamu diggutu muy kóol ba féete kaw muy cat la féete kaw bu dugalaatee baaraamu day bi ba mu taq deret mu fomp ko ci catul baaraamu ndombur bu delloo fompaat ak baaraamu day bi mu taxal ko ci catul baaraamu sangle jàppal ni loxo bu ne am na juróomi baaraam boo xasee génnee baaraamu day nag baaraam yi des bu ci nekk am na ñetti poñ ñu koy tuddee ñetti kóol man ngaa takk ne kon baaraamu day bi moom ci loxo càmmoñ bi moom la dugal ca bakkan ba fompe ko deret ja daal di topp nag ñeenti baaraam yi saa yu fompeeg baaraamu day bi rek taqal ci di gën a jege baaraamu day muy sànnikaay dem njëkk a taqal cat la féete kaw bu noppee ci baaraamu sànnikaay def ko baaraamu diggutu bu noppee ci baaraamu diggutu def ko li ñuy wax ndombur mujjee nag sangalee nga xam ne kon ñeenti baaraam ñëpp daal bu fekkee ay gi mat na kenn ku ci nekk taqal na cat la féete kaw ci mboolem ñeenti baaraam yooyu lam taqal foofee nag moom bu ëppoon dërëmu yoon biñ ko mayoon ci sowis nekk deretit du wàññi dara waaye nag bu fekkee ne ñeenti baaraam yi bu ci nekk catam la féete kaw ñu koy firee kóol ba ca kaw taqal na ko ba mënatu caa taqalaat day ñëw nag kon topp kóol yi nga xam ñoo nekk ci digg bi baaraam bu ne am na poñ bu nekk ci digg ba te na tàmbalee ca baaraamu sànnikaay teg ci bu diggutu teg ca ndombur teg ca sangaleeñ saa yu baaraamu day bi fompee deret rek kon na tàmbalee ca poñ ba ca digg ba ci baaraamu sànnikaay taqal ca la ca mën a taq ba ci jógee jàll ca ba ci sës muy baaraamu diggutu ca poñ ba ca digg ba teg ca ndombur ca poñ ba ca digg ba mujj mujj nag baaraamu sangaleñ teqale bi am foofu nag mooy cati baaraam ya féete kaw muy kóol ya féete kaw moom lam ca taqal lam ca taqal ci deret bu ëppoon lañ ko jéggal it du wàññi dara day julli rek wéy waaye nag pañ yi nga xam ñoo nekk digg bi saa yu ca taqalee lu ëpp lañ ko jéggaloon rek faaw mu war a dagg dafa am lu ñu jéggale woon ci deret daan ko tuddee dërëm muy kuppandal bi nekk ci tànkub li ñuy wax berkelle dañ ne woon la ko daq ci deret bu tolloo ne kuppandal boobee mbaa matu ko ñu jéggale ko bu ko ëppee faw mu war koo raxas du ko mën a julliwaale mu ne nag kóoli baaraam yi nekk ci digg baaraam yooyu nay xoolaale lam ca taqal ba xam ëpp na lañ ko jéggaloon ci deret wala déet ndax su ko xasee ëpp rek faaw mu war a dagg julli ga xam nga fi nga toll moom mooy mi ngi julli mbor mi tàmbalee génn waaye jàpp na ni moom balaa waxtu wi jeex mbor mi jeex mu mën a julli te du julliwaale dereti mbor yi kon nag nee na suñ ko nee ndegam day seeb rek mën nga koy fomp ak sa baaraamu dëy di ko taqal ci baaraamu ci des ñu ko leerale léegi mu ne kat su fekkee ne deret ja taq na ko feneen ci yaramam mbaa ci ay yéreem bu ëpp lañ ko jégaloon faaw daa war a dagg ndax ndegam moom jàpp na ne balaa waxtu wee jeex mboroom mi jeex mu mën a bañ a julliwaale dereti mbori mi kon kat la ko taq ci deret ja bu ëppee lañ ko jégaloon rek na dagg su fekkee na it foofa day jàkk te dañ koo lal bu ragalee ne deret ji mën naa toq ca laltaayu jàkk ja faaw na dagg ndax dañoo bëgg fonk jàkk ji ba deret bañ faa tuuru bu ragalee ne moom deretam ji mën naa dem ba laal laltaayu jàkk ja moom lu mu tuut tuut rek ndegam mën naa laal laltaayu jàkk ja moom na dagg duñ ca seet ëpp na luñ ko jéggaloon wala déet waxoon noonu léegi ne bu fekkee jàkk ja suuf rek la wala ay doj rek la wala karo la yomb raxas moom kon nawee kon du dagg li waxoon léegi mooy mi ngi julli di bori jàpp na ni itam balaa waxtee jeex mbori mi jeex waaye nag mbor mi da doon génn ndànk-ndànk di seeb rek ñu jàpp ne mën na koy fomp ca baaraamu day ba di ko taxal ca baaraam yi ci des ndànk-ndànk balaa wees lañ ko jégaloon rek gusul moom noppi ci mu gën a noppale loolu la waxoon muy wax nag bu fekkee ne deret ji na muy sotti ko dafa gaaw lool day satatati mbaa muy toq toq yu mag kooku moom xam nga ne kooku moom du mën a wéyati ca julli ga ndax benn la sottiku daal di gaaw bari ba weesu lañ ko jégaloon wala mu taqal jàkka ja bu fekkee ni ci jàkka la nekkoon bu dee bàyyi julli ga nag bu ko neexee bàyyi ko bàyyi yëg dagg naa ko su mbor mi jeexee ba raxas ba mu set damay tàmbaliwaat bu ko neexee itam bàyyi bàyyi yëg maa ngi raxasi mbor mi su ma dikkee àggale li ma tàmbali woon am na ñu taamu lam julli woon mu bañ koo bàyyi bu dikkee rek àggale am ñu taamu mu dagg ko benn yoon bu dikkee tàmbaliwaat ñeneen ñi nag koo xam ne amoo xam-xam bu yaatoo yaatu ci lu demee noonu dagg benn yoon boo dikkee tàmbaliwaat mooy gën a wóor waaye loolu lépp nag bu fekkee ni waxtu wa xatut nga xam ne mbori ma mën na faa jeex mu ñëw am ci brakka waaye bu fekkee ne moom waxtu wa daa xat dañuy dugg ci ne ko li nga julli woon doo ko wacc da nga koy jàpp téye ko soo defaroo ba noppi nag daal di koy àggale su dee dagg na julli ga dagg bu dikkee day tàmbaliwaat na wax kon asalaamaaleykum mbaa mu wacc ci yéeneem jàpp ne yéeneetuta àggale julli ji mbaa mu def leneen loo xam ne rek mënta ànd ak julli dañuy bañ mu bañ a teewlu dara jékki-jékki rek bàyyi julli ji mel ne kuy defaru ji ci mbor yi mi te dogootoon ci bàyyi lam defoon defa tutit dara lu mënta ànd julli kooku bu dikkee bëgg a jàllale fa mu tollu woon tam du baax ndegam génn defaru ji ba tàggoog mbor mi ñëwaat mënu cee ñàkk kon taamu nañ bu dee génn mu jàpp catul bakkanam ndax mooy tax deret ja du génn bu baax ndegam nag nee nañu dagam waxtoo yaatu na mooy seet bu ko neexee bàyyi julli ga bàyyi wàcc naa ko su ma dikkee daay tàmbaliwaat su ko soobee it mu am yéene yi bu raxasee ba ñëw àggale lam doon def bañ koo wàcc su fekkee daa bañ a wàcc lam defoon ba koo àggale moom lii mooy sart ya ba ci njëkk mooy sart ba ci njëkk mooy la ko taq ci deret dañu ëpp lañ ko jéggaloon su fekkee ba muy dem di raxasi fekk na la ko taq ci deret ëpp lañ ko jéggaloon jeex na bu dikkee day tàmbaliwaat waaye la mu defoon moom yàqu naa ñaareel ba mooy fa muy raxase deret ja na jege ba noppi gën a jege boole ja nga xam ne bu foofa soree faaw bu dikkee day tàmbaliwaat la mu defoon yàqu na bu fekkee ne itam jege ne waaye gënta jege mooy fa mu koy raxase mënoon na faa bañ a àgg am na fu gën a jege foo xam ne mënoon na ko faa raxase mu weesu ko fa nag jàll fu gën a sori ci coobareem dong kon ba tey lam julli woon yàqu na day aajowoo fa muy raxase jege ba noppi te gën a jege boole ca sart ba ca topp mooy su fekkee mën naa bañ a mooy xibla ba ba muy raxasi bay àggale julli gi bu mooy xibla benn yoon saa yu su mooy xibla ci dudul ngànt rek lam defoon yàqu su fekkee nag mooy na xibla waaye fa mu doon raxasee def boo xam ne faaw boo fa jëmee da nga mooy xibla dara nekku ca ba ca topp mooy bañ fee dëgg sobe benn yoon su fi dëggee sobe doonte ci njuumte la it julli ga yàqu na faaw day tàmbaliwaat ba ca mujj nag mooy ba mu demee raxasi ba nim ñëwee di mottali mu bañ fee wax benn yoon su fi waxee doonte njuumtee tax mu wax fi it la mu defoon lépp yàqu mu war a tàmbaliwaat mu ne nag ndegam day jokk mooy daa raxasi ba ñëw bëgg a àggale julli gi na seet ràkk boo xam ne noppi woon na ca ba sujjóot ñaari sujjóotam ba nga xam ne sujjóotu ñaareel ba ba mu ci siggee delluwaat na ba dal na meloon ba mu sujjóotagut rakk mel noonu rek lay limaale nga xam ne kon su fekkee ne rakk boobee taayaa fa sësoon ba mu sujjóotee sujjóotu ñaareel ba toogoon na ba àggal gannaaw ba nag mbari ma door a dikk mu jóg dem di ko raxasi nga xam ne kon siggee na ca sujjóotu ñaareel ba ba toogoon ci taaya ja bëgg a taaya mbaa sax bu fekkee foofa taaya su su woon moom su jotee su jotu ñaareel ba jógoon na ba taxaw nga xam ne kon benn rek mi ngi bàyyi ko woon ci ab taxawaay wala mi ngi bàyyi ko woon ci ab toogaay lam bàyyi woon jur gi rek nag ca lay dellu si su ko mbari mi ñëwalee fekk boobu mu toog di taaya bu ñëwee bay àggale di delluwaat ca toogaay boobee su fekkee daa fekkoon mu taxaw ci ab ràkka di delluwaat ca taxawaay boobee lam jàngoon nag moom lépp lay baamuwaat jàngaat ko ni ki dafa taxawoon ci ràkk bi ba jàng faatiha ji ba mu deex ba mu tàmbali saaroo mboor mi dikk mu dem di ko raxasi su ñëwaatee ràkk boobee day baamuwaat faatiha ja toppaat njàng ba mat lam jotoon a jàng du ko jàppaale ci gàttal daal bépp ràkk boo xam ne demutoon ba noppi ca ba def ñaari sujjóotam ba siggee ca sujjóotu ñaareel ba ba dal ci ree jub xocc mel na war a mel ci nam siggee ca sujjóotu ñaareel ba li fekk deful loolu rek ràkk boo xam ne amu ca loolu rek da koy wacc bañ koo limaale ci julli ga bépp ràkk boo xam defoon na ca noonu nag dana ko wàññiwaale moom dal ci sësale jàll bu toll woon ca taxawaay ba mboor mi dikkal ko mu dem di ko raxasi wala mu toll ci rukkoo mbaa sujjóot mbaa gannaaw bam siggee ca rukkoo ba yooyu yëpp ñooye moo fekkee foofa la toll woon mboor mi dikk mu dem raxasi rek booba ràkk du ko wàññiwaale nga xam ne loolu bu fekkoon ne mooy ràkkaam ba njëkk a njëkk bu dee seetani day àggale day jàpp ne armal kese allah akbar dong dong la defoon moom képp la amoon su fekkoon ne amoon na benn rakk ñëw ba ca bu ñaareel ba toll ca njàng ma mbaaru ko mbaa sujjóot mbaa yi demee noonu mbori mi dikkal ko bu dem di ko raxasi bu dikkee bëgg àggale te jàpp ne kon amoon na rakk bu jëkk daal jàll teg ci bu ñaareel wéy su àggee ca ñetteel ba lu demee noonu dal ko wala ca ñeenteel ba itam moom daal noonu rek lay tegalee ràkk ya bépp ràkk boo xam ne jotu ci woon a sujjóot sujjóotu ñaareel ba ba yëkkati ko ca sujjóot ba ba delluwaat mel na meloon ba mu sujjóotagut bépp ràkk bu mu deful noonu rek du ko wàññiwaale bu mu def noonu nag na ko wàññiwaale su jàppee ne moom su raxasee mbor mi ba àggal bu delluwaatee itam dana fekk ilimaan sëlmal rawante na sax ñu doon jullee ci rajo ba mu dégg rajo ba jottali ilimaan ba sëlmal kon fa mu doon raxase mbor yi ma ndegam mën na faa àggalee julli ga day war mu àggalee ko foofa su fekkee mënu ko àggale foofa fu ko gën a jege te mën faa àggale julli ga rek na ko fa daal di àggale gannaaw bi mu ko wóoree nag ne ilimaan sëlmal na mbaa am na ci njort ne dana ko fekk sëlmal ñu ne ko te nga doon raxase mbori mi ndega mën nga fee àggalee julli gi àggalee ko foofu su fekkee mënoo ko fa seetal fu gën a jege te nga mën ko faa àggalee nga àggalee ko fa bu deful loolu rek julli ga yàqu bu dee sikki sàkk ne ilimaan sëlmal naam sëlmalut rawante na mu jort mbaa mu wër ko ne ilimaan kat wërgut a sëlmal kon bu raxasee mbor mi ba àggal war naa dellu ba ca ilimaan ja doon ci sax daa jàpp ne dana ko fekk mu taaye ba sëlmal képp dese ko it du tee na dellu moom ba fa ilimaan ba bu ilimaan sëlmalee nag mu door a jóg àggale ak julleem bu jàppee nag ne du fekk ilimaan ba noppi ñu wax ku ne ko war ngaa dellu ba ca moom kooku bu ñëwaatul rek julli ga yàqu su ñëwoon nag fekk ilimaan sëlmal it dara nekku ca day àggale rek waaye dama xës na jàpp ne moom ilimaan noppeegut doon ci sax sikki saak dong la na ñëwaat ba ca ilimaan ba dana leeral ca kanam ne bu dee jullik àjjuma moom faaw di ñëwaat ba ca jumaa ja tax jullik àjjuma ci jumaa rek lañ koy defee masala mii moom moo ko leeral waaye borom muxtasar andiwu ko woon daa am lu ñu tuddee alqadaawu fay ak lu ñu tuddee albinaaw jokk alqadaa mooy li nga xam ne laata ngay ñëw di ànd ak ilimaan nga fekk ilimaan julli ko muy bor boo war a fay albinaa nag mooy loo xam ne gannaaw ba nga ànd ak moom nga am ngànt ni ki mbori nii dem di defaru ji ba nga ñëwee nag fekk mu julli ko sa gannaaw loolu moo tudd albinaa dana wax léegi bu yaar tasee ñu wax fii nag mooy albinaa rek moom danga ñëw ànd ak ilimaan fekke raataam bu njëkk nekki julli ñeent rakka bu doon gee ci misaal nga ñëw fekke rakka bu njëkk ci gee ilimaan jiite la ko mboy mi dal lay dikkal ba nga demee ba ñëwaat fekke rakkaam ba mujj kon yow sëg julli ñaari rakka nga ca amagun rakka ba jëkk ak ba mujj ñaar yoo ci biir nag muy ràkkab ñaareel ak bu ñetteel ba nga demee di raxas ci mbori mi la ko ilimaan julli sa gannaaw kon nga njëkk indi rakka jàng ca faatiha ku saar biral ko ndax liñ misaale gee bu ràkk boobu jeexee nag dangay toog foofa taaya yow sax sam ñetteel la waaye nag ndegam ilimaan toogoon na fa ndax moo nekkoon ñaareelam dangay toog foofa boo jógee nag door a indi benn rakka jàng ca faatixe kese yellu ko taaya sëlmal loolu mooy bi nga xamee ne li ñuy wax albinaa jokk rek moo la dal ndax yow fekk nga njalbeenu julli ilimaan rakka bu rakka bu njëkk julli fekke nga ko rakka ba mujj julli it fekke nga ko ñaar yi ci biir bi nga demee di raxasi sa mbor yi la ko jule woon sa gannaaw li ma ta leeral foofu nag mooy bi nga ñëwee ba julli benn rakk rek te fekk mu tolloog ñaareelu ilimaan te ilimaan toogoon na foofa taayi taayi digg dañ leen yow itam da ngay toog foofa doon sax yow sotti ko na ñetteel ci yow tutee rek dafa ilimaan toogoon tax nga toog fa nga seetluwaale boobu sew sew bu fekkee loolu da ko daloon julli jumaa moom faaw mu dellu ba ci jumaa ja doon ci sax dégg na ilimaan sëlmal ci rajo jumaa ji itam tu tee mu delluwaat ba ca jumaa ja jëmmi jumaa ja nga xam ne ca la doon jullee bi mbor mi dikkal ko itam jumaa yooyu lay dellu du dellu ci beneen jumaa tamit bu fekkee ba muy door a ñëw daa fekkoon biir ba fees ba mu nekkoon ca ëttu jumaa ja it bu ñëwee day dugg ba ca biir door a àggalee ca biir te it fu mu njëkk a yem rek man faa àggalee na fa daal di yem bu ko weesoo rek la mu defoon yàqu su fekkee ne ba ko mbari muy dikkal fekkan na mu am julli ilimaan rakab mu sëkk ba def ñaar sujjóot ya ba siggee ca sujjóotu ñaareel ba ne ko amoon na rakk bu mel noonu moom bu dikkee kon day julliwaat benn rakk rek teg ca mu doon julli jumaa waaye nag bu fekkee ne amutoon rakk bu mat ci ni ñu ko waxe su raxasee mbor yi ma ba ñëw day li xaam julli tisbaar ndax julli jumaa moom mëni su ko kenn kennoo te ndegam amutoon julli ilimaan ji lu matub rakka faaw rek kon tisbaar lay mën a julli waaye nag bu fekkee ne am na dëkk bu fa jege bu am jumaa mu mën a caa jullee jumaa wala jëmmi dëkk bi ci boppam am nay jàkk ay jàkk ay jumaay jumaa am na jumaa dem jullee ca faaw day war kon mu dem ca jumaa joojee jullee ca su ilimaan waxee asalaamaaleykum laata ngay wax asalaamaaleykum yëg ne yaa ngi tàmbalee bori da nga daal di wax rek asalaamaaleykum jóge benn yoon du jar ngay wax naa daay dem tàggoog mbari mi door a ñëw sëlmal bu fekkoon ne nag ña nga ca taaye ja waa ilimaan sëlmal gut mbooreem tàmbalee génn te daal di gaaw bari moom te daal di gaaw rek génn dem raxas si mbari ma su ñëwee nag te fekk ilimaan sëlmal mu toog daal di baamu taaye ja sëlmal day wax nag bu fekkee alqaba ak albina dafa tase ci moom mooy laata muy ñëw di àndise ilimaan am na ko ilimaan rawe loolu moo tudd alqaba gannaaw ba mu dikkee ba ànd ak ilimaan am ngànt ndikki mbari moomu dem di ko defari ñëw fekk ilimaan julli leneen ci gannaawam lam julli ci gannaawam loolu laa tudd albina yooyu yaar nag duñ tasee wax jëkkëna wóor mu dañuy topp ibnul qasim wax ne la ilimaan julli gannaaw bokk ngànt la dalee mu dem di ko defari bu dikkee loolu lay njëkk julli ba noppi door a fay nag la mu ko rawe woon laata muy ñëw di ànd ak moom ci kaw loolu nag na seetlu ne fépp foo xam ne ilimaan toogoon na fa rek moom dana fa toog doonte nekkut ab ñaareelam ba ci rakk ba ilimaan mujj a julli nga xam ne foofu la ilimaan mujj a tooge it moom bu ci àggee dana fa toog taaya doonte nekkut ab ñaareel ci moom julli ñeent rakk mën nga koo misaale gee soo ñëwoon fekk ilimaan julli rakk bu jëkk ba nga xam ne kon dala ko rawee moom muy alxabaa nga ànd ak moom rakk ab ñaareel abam ñetteel far mbari mi dikkal la nga dem di ko raxas bi nga dikkee fekk mu julli ràkkat ñeenteelam kon xam nga am nga benn ràkk boo xam ne laata ngay ànd ak moom la ko julli woon moom ilimaan mooy bu jëkk ba wala moo tudd alxaba ak benn ràkk boo xam ne moom mucc ci julleem moom nga fekkewut ndax li nga demoon di raxas yi sa mbari mi kon boo dikk da ngay njëkk andi benn rakk boo xam ne faatixe kese nga koy jàng te yàlla ko muy ba ilimaan mujj julli muy albinaa foofa nag ñetteel la ci yow waaye da nga fay toog taaya te xam nga fekke woon nga ñaar ak moom kon bii ñetteel la ci yow waaye ilimaan dafaa toogoon ndax moo mujjoon ci julleem yow da nga fay toog boo jógaatee nag nga indi benn rakk boo xam ne da ngay cay jàng faatiha ak saar te jël ko bu dee gee min ko misaale nga xam ne boobu rakk mooy ba mu jullee woon laata nga ñëw di bokk ci ci julleem julli boobu lañu tuddee umul janaa xay ni ndey yaari laafiya mel ni boroom yaari laafiya mooy ñaar rakk yi nga xamee ne ñu am saar bee daa nekk ca njëlbeen ga bee nekk ca mujj ga ndax xam nga dangaa dikkoon fekk mu rawe la rakk bu jëkk nga ànd ak moom rakk ab ñaareel ak ñetteel mbari mi dikkal la ba nga raxasee ba ñëw fekk mu julli ñeenteel ñu ne la ñeenteelam boobu yow moom ngay njëkk a julli boo noppee door caa teg rakk bu njëkk moom la roy woon laata ngay ànd ak moom kon boo ko dee seet rakk ba nga njëkk ànd ak moom moo doonoon ñaareelu ilimaan da caa jàngoon fatiha ak saar yow itam boo dee fay bi ngay mujj fay mooy bu njëkk ba la roy woon da nga cey jàng fatiha ak saar nga xam ne kon ñaar rakk yi nga xamee ne ñu am fatiha ak saar dañoo nekk ca egg ba ñaar rakk yi am fatiha kese nekk ca digg ba ci kaw li nga xamee ni moom la sa julli tegaloo topp bi ñu topp ibnul qasim moo waral loolu waaye ni sax noonu di waxee faaw moom mooy gën a yomb ndax moom day wax ne alqada maanaam la ilimaan julli woon laata mu ñëw di ànd ak moom loolu la njëkk a def door a def nag dam julli gannaaw bu amee ngànt dem di ko defari laata muy ñëw bu doon moom a tey ci gee mi nga misaale su defaree mbor yi ba ñëw rakk ba mu njëkk a julde ci jàng fatiha ak saar te biral ko jàpp ne mooy bëkku ilimaan rawe woon laata muy ñëw di ànd seeg moom rakk boobu bu jeexee du fa toog taaya ndax boo ko deseet moo waroon nekk bu njëkkam bu ko fekkee woon te it moom la ilimaan njëkk julli ilimaan toogu fa woon kon du fa toog moom itam mu tegaat ca benn rakk nag jàng ci faatixe kese daal toog taayu sëlmal nga xam ne rakk boobu ma tombeek di bu mu jëm doonoon it bu mu jub ilimaan maanaam jullit ñeent rakk yi rakk ab ñaareel ba ak bu ñetteel ba moom la ñu tuddee ñaar rakk yi digg benn weesu woon dafa fekk woon yooyu yaar yëpp muy bu ñaareel la bu ñetteel muy wax nag bu fekkoon ne daa fekkee ñaareel kese mbaa mu fekkee ñetteel kese waaye fekkandoowul ñaareel ak ñetteel benn yoon loolu nag mën naa amee ci ñaari anam anam bu njëkk bi mooy dafa ñëw di julli si fekk ilimaan weesu rakk bu njëkk weesu bu ñaareel mu ànd ak moom rakkab ñetteel bañ taxawee ci rakkab ñeenteel ba nag mu war a dikkal ko mu dem raxasi di fekk ilimaan àggal rakkab ñeenteel ba nga xam ne kon benn képp la fekkee muy rakkab ñetteel rakk ba muy njëkk a julli mooy ba ilimaan mujjee julli nga xam ne faatixe kese la cay jàng te yelu ko rakk ba muy njëkk a julli mooy doon ñeenteelu ilimaan mu jàngoon ca faatixe kese moom nag moom la njëkk a julli te jàng ca faatixe kese rakk boobu jeexee mu toog foofu taaya ndax moom ñaari la ci moom ndax benn la fekke woon ci ilimaan te it rakk boobu la ilimaan mujjoon a julli kon day toog foofa taaya taaya digg door a jóg nag andi ñaar rakk yu sësaloo te benn bu ci ne mu jàng ca fatiha ku saar te biral ko ndax rek li mu misaale gee te bu fekkoon ne geneen jullit ñeent rakk la kon ñaar rakk yooyu da ciy jàng fatiha ku saar te yelu leen julli googu la ñuy tudde al maqluba al maqlubatu mooy lu ñu jëlër bi mel ne lu këpp ndax boo seetloo julleen googu ci ay rakkaam tegaloo ñaar rakk yi nga xam ne dañ cey jàng faatixe kese ñoo jiitu ci julleem ñaar rakk yi am faatixe ak saar ñoo mujj ci julli kooku mooy benn anam bi nga xam ne rakab ñetteel la fekke ñaarak ya njëkk fay ko ci kaw li war a fay rakab ñeenteel ba raw ko ci ba mu demee raxas ci mbori ma anam bi ci des nag mooy dafa ñëw fekk ilimaan julli benn rakka dong mu daldi ànd ak moom rakab ñaareelam ba mu amee rakab ñaareel ba nag dañ taxaw ci bopp ñetteel ba mboori dikkal ko mu dem di ko raxasi ñëw fekk ilimaan julli ñaar rakk yu mujj muy ñett ak ñeenteel day njëkk julli ñaari rakk yi nga xam ne moom la ilimaan julli gannaawum ba mu demee di raxasi mbori ma day njëkk indi ab rakka jàng ca faatiha yi kese teyal ko mu tolloog ñetteelu ilimaan moom nag dana toog foofa ndax day ab ñaareelam ndax daa fekke woon ñaareelu ilimaan kon bu ci tegee bii ñetteel la woon ci ilimaan waaye moom ñaar lay doon ci moom mu toog foofu taaya taaya digg bu jógee ak mu cay teg da cay jàng faatiha kese te yelu ko ndax moo nekkoon ñeenteelu ilimaan moom nag ñetteel la ci moom waaye du tee mu tala foofu taaya ndax ndegam dañu woon rakk bu ilimaan mujj julli bu ci àggee day toog foofa kon rakk bii ñetteel la ci moom waaye ñeenteel la woon ci ilimaan fa la ilimaan tooge woon taaya sëlmal kon moom it na toog foofu mu door a fay rakk bu njëkk bu nga xamee ne moom la ilimaan julli woon laata mu ñëw di ànd seen moom ci julli gi kon ndegam julli gee la ni misaale te indi rakk boo xam ne moo ci mujj te jàng ca faatiha ak saar te biral ko ci misaal julli gee la mu ñëw fekk ilimaan rawee ko rakk bu jëkk mu ànd ak moom rakkab ñaareel naka yu taxaw ca bu ñetteel ba rek mboor dikkal ko mu dem di ko raxasi ba mu dikkee far fekk ilimaan julli rakkab ñetteel ak ñeenteel kon moom julleem jëpp benn la ca fekk muy bu ñaareel kon bu raxasee ba ñëw rakk ba mu njëkk indi faatixe kese la ciy jàng te yelu ko te nag toog foofa taaya ndax mooy ab ñaareelam ndax fekki woon na benn mu tegaat ca benn nag jàng ca faatixe kese moom it te yelu ko mu doon ñett ci moom te doonoon ñeenteelu ilimaan ndeke moom la ilimaan mujjoon a julli te toogoon na fa nag taaya kon moom it na toog foofa taaya lam doon doon ab ñetteelam bu jógee nag mu indi rakk boo xam ci lay jàng fatiha ku saar te biral ko mu tolloog rakk bu jëkk ba nga xamee ne moom la ilimaan julli woon laata muy ñëw julli gi boo ko seetloo rakk bu mu julli bu ne taaya topp na ca ndax dafa ñëw ànd ak moom rakk ñaareel te ba rakk ba jeex ilimaan toogoon na taaya mu ànd ak moom toog foofa taaya bañ jógee ci rakkam ñetteel nag la ko mbari mi dikkal mu dem raxasi fekk ilimaan noppi ci julli ga naka mu indi benn rakka jàng ci faatixe kese te yellu ko ñu ne ko toogal foofu taaya ndax yow mooy sab ñaareel mu jógaat tegaat ci rakk boo xam ne faatixe kese la cay jàng te yellu ko ab ñetteel la ci moom sax waaye ñu ne ko toogal foofu taaya ndax moo doonoon rakk ba fi ilimaan mujje julli mu jugaat nag andiwaat rakk boo xam ne da cay jàng faatiha ku saar te biral ko muy bëgg ko ilimaan rawe woon mu toogaat nag foofa taaya sëlmal julli ko gay ci xay di wax naa julli ko am ñeenti taaya nga xam ne rakk boo weesu rek taaya topp na ca ba ñeenti rakk yépp tegaloo daa ñu koy tuddee umul janaa xayni